salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki Touba Argentine ah bu ngeen gisee toogaay bi rek xam ne comme niñ leen koy faral di waxee saa su nekk am na lu ko waral lan moo ko waral muy liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne fédération Cheikh Ahmadou bàmba bi nekk ci réew mi ŋànk nañ ko. ñooñu ñooy jëwrin yi ngeen gis ñu toog nii toogaay bi li ko waral mooy li jëm ci pàkkub sëñ Tuubaa bi buñ ne pàkk nag kon pàkk lañu ñu wutalagum sëriñ Tuubaa fi ñuy jublu mooy kër sëriñ Tuubaa kër sëriñ nag li koy waral mooy jënd pàkk tabax ko ba mu yegg loolu moo waral toogaay bi ñu woote am ndaje ndaje boobu mbooleem képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi rek te di jullit rawatina ngay njabootuk Cheikhul Khadim ñu ngi lay woo ci ndaje moomu kañ la le 2 avril fële ci hôtel Bawane jox Serigne Mor sàll bu ko defee mu waxtaan ak mbooloo mi soññ mbooloo mi bu ñu fa noppee jox maam Thierno Amar gannaaw loolu yit danañ jox jëwrin Modou Sène ak Serigne Khadim Ndiaye bu ko defee yet euh, ñu soññ mbooloo mi wax ak waa Argentine ana nan lañ bëggee ci bés boobee ana nan lañ koy doxalee kon nag duma def lu du tàllal sama micro ki nga xam ne mooy Serigne Mor Talla Sall. mbokki jullit yi ak mbokki taalibe bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen siyaara bu baax a baax ci jataay bu am bi nga xam ni moom lañ fas yéene amal di ci woote ci mboolem ma mboolem jëwriñ yi nga xam ne doo nekk ci réew mi yëpp ak mboolem taalibi yi nekk ci réew yëpp ndax jataay bi bu ngeen ko gisee comme ni ko sëñ Assane waxee rek noonu la demee maanaam dara génnu ci sëriñ bi lépp rek sëriñ bi la ndax comme ni ñu ko alxuraan waxee rek wax ni yaa ayyuhal na amanu istajibu lillahi wa li rasuli isa daxakum lima yuhyikum mun yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla maanaam saa bu ñu leen wootee ci woote suñu borom na ngeen ci wuy ji ba loolu tax na rek ñuy wootee liggéey bu am solo boo xam dañ koy jëmale ci liggéey Serigne Touba bi ndax ku ne xam na ne Argentine maanaam diir bu yàgg moo ngi nii ñuy lijjanti kër Serigne Touba ba yàlla mi dara tuur jàpp ndal ko léegi nag ñuy woote nañ la ñuy def ba taxawal ko ba loolu moo waral jataay bi nga xam ne moom la amal nii ak suñu mbokki joni yi nga xam ne ñoo fi nekk di ko soññ suñu bopp di ko soññ mboolem taalib yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi yépp di woote ci bépp kuréel boo xam ne yaa ngi ci réew mi rek ñoo ngi lay appel pour wax la ne la daal incha allahu taala date bi ñu jàpp la 2 ñoo ngi ci woo mboolem taalibi fu waay nekk sa si comme ni ko mbokk yi waxee xam naa danañ ci ñëw su ko defee maanaam ñun ñëpp ñu bokk fonk te gëm ko xam ni kër Sëriñ Tuubaa moom ku ne xam na ni moom dara génn ci lislaam ndax euh, maanaam néegu yàlla la ak fu ñuy jàngale ak daaraay alxuraan te loolu lépp maanaam dara génnu ci yoonu lislaam ak yoonu diine nga xam ne dañ ci woo mboolem morit ak tijaan ak xaadir ak laayan fépp fu waay nekk ci réew mi rek ñoo ngi la ci woo di la ci di ci la ci tàll suñu loxo ci woote bi nga xam ne moom la ñu woote le deux bi incha allahu taala su ko defee xam naa su mbokk yi ñëwee dañ ko gën a yaatal su defee kon dañuy jox suñu mbokk mi di maam Thierno mooy mu sànni ci ay kàddu rek incha allahu taala. salaamaaleykum wa rahmatullah <clears throat> mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar baax te jiital ziar bi sëñ Muntaxa yàlla na fa yàgg lool tànn ak wér di ziar mbooleem njabootu Serigne Touba yëpp di ziar mbokk yi ma fi nekkal yëpp ak mbooleem taalibe yi nekk ci Argentine yëpp ah, di sànn ay kàddu yu gàtt rek muy kàddu yi muy li jëm ci assemblée générale bi nga xam ne war nañ ko amal le 2 avril ñu war cee doxee wàccaayu kër sëñ gi nga xam ne ci leen bëgg a jublu di ci soññi sama mbokki taalibe yëpp rek di soññi mbooleem jëwriñ yëpp rek fu waay bu mën a nekk rek muy ci province yi. muy ci biir capital muy fu waay mën a nekk rek ñu ngi leen ci soññi le 2 avril ca hôtel Bawol bu mu xëyee rek incha allah fa ko commencé ba guddi di soññi rek ci maam aadiya ji nga xam ne si benn mbokk taalibe bu nekk ci biir dëkk bi rek xam nga ne mille pesos war na la ci te loolu tamit par personne la concerné fu waay mën a nekk rek moo xam foo mën a nekk. di wax na tamit maanaam woote bi du jëwriñ rek lan woo wala ñi ne ci bureau bi mboolem fu mbokk taalibe nekk muy ci dëkk bi muy province si ñu ngi lay woo ci bis ba ndax bis boobu mooy bis bi nga xam ne bu fa leen fas yéenee dajale àddee ji pour commencer kër Sëñ Tuubaa gi ndax ku ne xam ne terrain rek lan am te terrain moom li ko li terrain jënd ko moo gën a yomb li koy tabax kon nag mbokki taalibe bi ñu ngi leen di soññ di soñ sama bopp foo ay mën a nekk te yaakaar naa jullit bu nekk ci dëkk bi ñuy commencé kër sëñ Touba war koo taxawal bëggoo kenn ku la ci raw te ku nekk boo sañoon sa ñaq njëkk ca kon nag ñu ngi woo bépp jullit bàyyiwun kenn di xam naa buñ joxee kàddu gi sëñ Xaadim mi jóge ci province yi dana soññ waale waa province yëpp ndax bëgguñu rek province yi jëwriñ ju ne jóge fa danoo bëgg province bu nekk mbooloo ma fa nekk ñëpp ñu ñëw ànd ak jëwriñ yeeg yëpp kon xam naa damay jox sëñ Bamba mu leeral programme bu ko defee mu jox sëñ Xaadim ñu leeral li nga xam ne waroon ko ci leer kon daal ñu ngi woo ñëpp bàyyun kenn salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalib yi ñu ngi leen di jaar di leen màggal di tuub te di leen jégal bu baax di jiital ci jaar bi sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu sañ Tuubaa gi yëpp di jaar itam jëwrinu maanaam fédération muy sëñ Yankoba ak sëñ Bamba ak mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom liggéey bi yëpp comme noonu ko mbokku jëwriñ yëpp waxee rek maanaam mbir mi noonu rek la muy fédération bi biñ ko taxoolee le 25 première assemblée générale bi nga xamante ni moom lañ fi defoon mu ngi doonoon ci avril bi daaw comme que ni at dem na nag liggéey moom booy liggéey ba at jot da ngay taxaw def seetlu moo waral assemblée général bi assemblée général bi nag li nga xamante ni moom lañ ciy doxee incha allahu rabbi programme bi nii lay tëddee muy ñu ngi woote 10 heures ci suba incha allahu rabbi kon fépp foo xamante ni taalibe nekk na fa ci biir réew mi rek 10 heures ci suba na la fa fekk bu ko defee incha allah rabbi danañ indi li nga xamante ni mooy programme yi nga xamante na fee jaar diggante 10 heures ba wàllu midi jàpp tisbaar gi bu ñu julee tisbaar ba pare incha allahu rabbi képp koo xamante ni jëwriñ nga nekk ci biir euh, ci biir maanaam salba incha allahu rabbi danañ leen jox kàddu jëwriñ jur ci nekk fësal li nga xamante ni mooy yéeneem bu jëwriñ yi pare ñi nga xamante ni mooy mbooloo yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir dëkk bi itam danañ leen jox ku ci nekk kàddu bu ko defee ku ci nekk rek fësal sa yéene ci li nga xamante mooy liggéey sëñ Tuubaa bi buñ paree ci loolu itam ñu xool li nga xamante ni moom mooy programme bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu kër sëñ gi kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn maanaam du jëwriñ yi dong lan woo képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah ñu ngi lay woo ci biir bis boobu kon képp koo xamante ni itam yaa ngi ñëw ci biir bis ba 2000 francs yi nga xamante ni moom mooy wàllu sasi na ko ku ci nekk indaale mbooloo yëpp nañ ñëw na ñëpp bàyyi liggéey yeeg yëpp ñëw teew ci liggéey boobu ngir jëmmi sëñ Tuubaa gi rek tax ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun kenn kon ñëpp nañ ñëw rek ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñu ñëw taxawal li nga xamante ni moom mooy wàllu liggéey boobu waa association bi itam ñu ngi leen ci woo bu baax a baax a baax bu ko defee ñu ñëw teew ci boobu bu ko defee ñu ànd ak ñoom ci wàllu liggéey boobu kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn kon daal loolu moom mooy programme bi nga xamante ni moom lañ jàpp incha allahu rabbi le 2 avril fële ca hôtel Bawon kon ñëpp nan nan ñëw teew fa incha allahu rabbi ñu ngi tuub nag bu baax a baax a baax tey jégalu di ñaan yàlla nan yàlla boole jégal defal taw feexe tey si ñu fekke kook jàmm barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki Argentine maa ngi leen di siyaare bu baax di siyaare sama mbokki jëwriñ yi ma toogandool fii. lii nag su ngeen gisee ñu woote ko mooy assemblée sénérale bi nga xam ne moom la ñuy woote mu jëm ci kër Serigne Touba gi ci liggéey boobu rawatina yi tamit euh, fédération bi ñu ngi ko taxawaloon ci le 4 avril bala de mu nekk un an ñu war a yeesalaat programme bi yeesalaat liggéey bi kon ñu ngi ciy woo mbooleem koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu te nekk biir Argentine gépp rawatina sama mbokki jëwriñ yi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk ci province yi ndax bu buñ gisee sama kàddu yi xam ne man yàlla dogal na ma teewe ko tey jii kon maa leen fi teewal ñoomit ma bëgg ñoomit kenn ku nekk sa mbooloo mi nga am ne ñëpp ñëw te kuy ñëw nekk nga laaj ko 2000 pesos yi nga xam ne mooy sas bi bu ñëwee ñu teewee ci liggéey Sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy woote ndax kat lépp lu ñu fi njëkk taxawal ci Sëriñ Tuubaa benn murit bu ci des ginnaaw kon ñun dañ cee war a jiitu ñu ñi nga xam ne ñun ñoo ne ci àll bi te ñi ne capital taxawal ñu ci liggéey Sëriñ tubaa ndax ñoom ñooy bàyyi seen xëy di bàyyi seen gont di dox ci liggéey suñ tubaa kon ñun dañoo war a ñëw delloo leen jukkal kon delloo jukkal googu nag dañoo war ñun ñi nga xam ne dañoo ne ci àll bi fexe ba duñ des ginnaaw man kon maa ngi woo sama mbokki jëwri ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi yépp bàyyiwuma kenn te képp koo xam ne yaa ngi ñëw nga soññ sa mbooloo ba 2000 yooyu nga indaale ko wala nga àndaale sa mbooloo ñoom ñëpp ku mënut a ñëw it na joxe sa euh, addiye mu ñëw liggéey suñ tubaakat jëf la rek loola romb romb na la kon nañ fexe lii ñu dëgmal nii bu nu ci kenn man ñu sosandoo ko àggalandoo ko ci barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñi ngi dellu siwaat di ziare bu baax a baax a baax rek uh, suñ jëwri yi nga xam ne ñoo fi jot a jaar nga xam ne lii matana wax lépp ñoom wax nañ ko ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax kon maanaam ñi ngi ciy woo ñëpp rek comme ni ko ñëpp waxee rek di ci woo tamit ñi nga xam ne ñooy waa xidma bi nga xam ne daanaka liggéey bi ñoom li ci ëpp ñoo ko yore muy wàllu maanaam andi basang yeeg togg fa xéewal yaag lañ fa war def lépp ñoom ñoo ko far def kon ñu ngi ñu ngi sàkku tamit képp koo xam ne rek yaa ngi ci a ñëw jàpp ci liggéey moom ah, woote woon ak màggal comme nit ñëpp wax maanaam joxe xaalis la ñuy woote kon képp ku ñëw rek na nga bu baax a baax te képp koo xam ne ci xidma bi nga teel a ñëw ndax comme ko waxee rek eh, añe ñoo ko war a togg ndékki yeeg yu la fa war def yëpp ñun ñoo ko far def kon ñu ngi leen ci ñu bopp di ci woo ñëpp rek di sàkku seen teewaay na teel loolu nag ñu leen di ziar